<laughs> gërëm nañ dem seetaan yi li nga xam ne moom moo di on serait ma xool nit yi tamit naka lañ toogee seen kër doon seetaan léegi léegi ñu xool on serait chez avec Irène Khanibel Irène ça on se réjouit Kaolack ñu ngi lay déggee di kontaan ci yow lii on t'aime fort Yaya tu ba mel ne mbaaw ñu ngi yàq saa yaya tu ba mel ne mbaaw lépp ci mbaaw garam mbaaw sống bao bếp phu sinh bao ya ya thì bom lên lên bao rất thành Cái, cái, cái. fi nekk wala waaw waaw xësaa yow yaay bakkan yow yaay bakkan ku la ñàkk dootul ñandu feeb feeb feeb feeb waaw waaw sa lëx weli ngarax mi ngi lay déglu artiste comédien jaajëf waaye doxalal ba kenn laal ay sama waa ji waaw waaw yow laay bëgg de. yow ki ma teral ba ma tedd maam kam sunum yow laa yow laa bëggee xëca moo ñuy bëggal waa France ay <laughs> ñun de bu ñu bëggee xëca rek moo ñuy bëggal franchement nag kontaan nañ ci xëca <laughs> ne yaayaatu ba mel ne mbaaw petit mbaaw grand mbaaw zag mbaaw lépp ci mbaaw ee lay dajee ca mbaaw ca a yaay tey damaa xëy faj damaa faj waaye ma seetaane xasaa damay tane yarumee naan garab yi tey man lii tuuma sax nag xësa yaya tuuba mel ni mbaaw ni petit grand mbaaw zag mbaaw lépp ci Xasa yaa ba mel ni mbaaw. Xasa ñu ngi lay bëggee bu baax waa Mauritanie yëpp ñu ngi lay kontaanee surtout waa Nouadhibou nag. ak ki woo xasaa lay bëgg bi walla ñoo la bëgg ñoo la naw. Eh, vidéo bi maa koy may Ngoné Njaay Géwél <laughs> eh, ñun Grégoire lañu àndal foofu. bakkanam bu rëy bi mun naa ne def filtre noonu ñàkk fayda ayca jërëjëf merci beaucoup Gré li ma la yónnee kalal ma ko laataa may seeti l'une des plus belles voix également de la musique sénégalaise xale bi nga xam ni moom tam euh, ci euh, jamonoom ci euh, période bi ñu toll bokk na ci xale yi nu gën a ràññee je dirais pas au Sénégal mais un peu partout en Afrique et dans le monde parce que elle est pétrie de talent amul kenn ku koy natable talent am kenn du ko natable elle se nomme tout simplement Dieyla pour votre plaisir jaayu ñu jaayu ànd ak